بسم الله الرحمن الرحيم نيوغي سنت يا لامي بروم بن ديفي دي جولي صلى الله عليه وسلم اقوا كرم اك اي صحابام اك كيب كتوب تي نيوم غيناو لولو نيوغي نيو خليفه جنرال بوتشانابا سيرين عبد الرحيم سيك دي توفتال تي نيو بوبو شيف دو فيلاج سيرين الحسن نيانا سيك دي نيو امام جاكاي ak borom xam-xam yi fi teewal yu l'islam yi di nuyit it sous-préfet bu Thiénaba ak monsieur le maire Serigne Talla Diagne waaye di nuyu suñ mbokki ndonga daara yi nekk ci daara yi Hadja Binta Thiaw di nuyu mbooloo mi fi teew di leen boole nuyoo bi l'islam bu tey boobu te barkeel te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbooloo mu tedd mi ci sama kàddu ak wutu gu ma fi wutu mbooloom daaray Hajja Binta Thiaw ci laa leen di digtal discoursum ndaje mi ñuy teralee ñu mokkal alquranul karim ci tombu jeexitalu jikko yu yàqu yi ci pénc yi àdduna bi dafa jànkonte ci jamono yu mujj yi ay tolof-tolof ak ay jafe-jafe yu bari yoo xam ni mënoo fi koo lim waxumala ak di ko takk waaye la ca ëpp day dellu ci sànku teg yi loolu moo tax daara ji tànn tomb bi ngir dëppoogum dëppoog jamono mbooloo mu tedd mi fi teew lislaam day diine ju mat la ta matale làmboo na mbooleem dund nit ñi te day tabax pénc mu tedd mu kawe te mucc ayib di jëmbat ci ay doomam ay jikko yu kawe ca bañuy tuut jikko yi day ñooy meññeefug pas-pas yu wér ak jaamu yàlla yu sell yi bu jikko yu yàqoo doomu aadama bi day mel ni njaay àll buy fàdde loolu mooy li xew buñ xolé xoolee ca fi jitu won dañuy gis ni dañ leena alagon alagoon ngir seenug dëngte ak senuk mbewta ak senuk yàq ci kaw suuf te alquran karim ju ngi ne ci ay place yu bari ci ay xeet yo xamni ne suufe won ñu alag leen te alaguñu won xeetu nuux ak waad ak wa thamud dudul seen jikko yu bon ak seeni pass pass yu yaq borom subhanahu wa taala mu ngi leral melkanu ni si ña ak waad ak wa thamud bañ to tooñ mi wax ni وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى برم بنينا ممو ألغون وعاد نجكنا مو ألغون الواثم التبايو فوان كن lu jitu loolu alagoon na nitu nuh nya ndax ñom ñoo gënon na bew te gënon na togn borom bi alagoon na nitu lut nya te jexal len mu mbugaloon len ngir seenu deung walif pas-pas ay jikko ci walu sëy jàng len bu len nexé wax borom bi subhanahu wa taala ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسيفون برام بنينا فاتل كلوت بموخي أو نتم نيلين ndax yeen da ngeen jëf jëf ci ñaaw joo xam kenn jiitu wu ci woon ci mbindeef yi ndax da ngeen di def ak ngóor jigéen ngir di ci wut bànneex yéen dey ay nit ñu mën a yàq ngeen aw nitam tontuwuñ ko woon lu dul ni génne leen luut ak waa këram ci seen dëkk bi ndax ñoom ay nit lañ ñoo xam ni dañuy sell sell bokk na ci li alagoon xeetu aad mooy ak dëngute ak ginnaaw mañ bañ moyee seeni yonent ak bañ weddee seen aayay boroom borom bi subhaanahu wa taala nee na وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ۖ ألا بعدا لعاد قوم هود borom bi nee na waa aada ngi noonu dañoo weddi woon seen ayay borom moyoon seen yenn toppoon mbirum képp koo xam ne doon féetéeral di rëy rëylu ñu tofta ak rëbb fii ci àdduna ak ca àllaaxira borom bi nee na waa aad dañoo weddi woon seen borom yàlla soli leen waa aad te jigale leen wéppu ay ñoom bokna na ci li alagoon wa madian ginnaaw bokale yàlla ak weddi ab yonentam seni wor ci jëflante yi ak ñàkk matal matal kay yi ak kay yi ak yàq ci kaw suuf ak dox gënte nit ñi ak yoonu yàlla borom bi wa taala nena wa ila madian akhahum shuayba قال ya قوم اعبدوا الله ما لكم min ilahin غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين borom bi nee na yabaloon nañ ca waa Madiyan seen mbokk ma ñuy wax Shuayb Shuayb ni leen yéen sama xeet jaamu leen yàlla amoo leen beneen buur bu dul moom aw lay wu leer nañ ñi dikkal na leen bàyyi ko fa seen boroom na ngeen matal nattukaay yi ak peesekaay yi te bu leen yàqal nit ñi seeni yëf te bu leen dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla loolu day moo gën ci yéen ndéem gëm geen te bu leen xëppéeral ci wépp yoon di dox diggante ñi gëm yàlla ak yoon yàlla ngeen koy sàkku ci ak nëngute fàttaliku leen ba ngeen néewee yàlla bari leen te ngeen xool mujjantalu tooñkat yi Xaaruun day bokkoon na ci ñi ëppoon alal ci jamonoom waaye yàlla da koo mëddoon mook alalam ak këram ci suuf ngir ak mbewteem ak ak yàqam ci kaw suuf borom subhaanahu wa taala nee na إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين برب نينا Qaaruun day bokkoon na ca nitu Muusa ña waaye dafa bewoon ca seen kaw ñu joxoon ko ay ndàmbi alal yoo xam ni caabi yoo koy tëj diisoon na mbooloom doole ko ba ko aw nitam waxee ni ko bul sëgëre ndax yàlla bëggul ñuy sëgëre li la yàlla jox nanga ci sànku nañ ci sàkku yowmal qiyaam te te bul fàtte sa cër fii ci àdduna na nga rafetal comme ni yàlla rafetale ci yow te bul sàkku ak yàq ci kaw suuf ndax yàlla bëggul ñuy yàq mbokk yu tedd yi yonent yi day dañ leen a yónni woon ñoom ñépp ngir ñu génne nit ñi ci lëndëm te teg leen ci leer ñu toog leen ci yoon nu jub ñu bàyyi tooñ bàyyi bokkaale bàyyi ak mbewte yonent bi sallallahu alayhi wa nee na dañ ma yónni ngir ma mottali jikko yu tedd yi kon sànkuteg sànkuteg jikko yi day waral alkaange ak jeex خيتو الإسلام أمونا نياري كولو تيالي يكتي بين باتي دموك سنينانت محمد صلى الله عليه وسلم مدسل في بين بفيق نيون يوتوب دي جيغلو سين بروم سبحانه وتعالى بروم بنينا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يلا نينا خيتو ينتبي صلى الله عليه وسلم yàlla du leen buggal fi ak moo ci biir moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla du leen buggal fii ak ñoo ngi tuub di jégalu seen borom subhanahu wa taala mbooloo mu tedd mi bokk na ci li nga xam ni li so ki soroo ki jiga yépp seetloo na ko mooy ni lu ëpp ci lañu alagee woon xëy di fi jiitu woon ci ay jikko yu bon lu ko mel ni tooñ rëy rëylu ak mbewte ak ak ngóor jigéen ak ay jëflante yu ñaaw dafa tasaaroo léegi ci suñu réew yi te ñu xam mooy ni musiba yi ak balaa yi dañuy wàcc ngir sababu bakkaar yi ak moy yi te defu ko yëkkati lu dul tuub ak jégal yàlla subhanahu wa taala kon nañ taqoo ñaar yooyu ngir yàlla yëkkati ñun musiba yi ak balaa yi ak mbas yi fa may jeexalee damay fàttali wayjur yi ñiy yar ci pas-pas bu wér ak jaamu yàlla yu sell ak ay jikko yu ñu sant ngir ñu nekk ñi fi gën wuutu fi ñu fi gën maa ngi leen di sant ci seenu déglu ak seenu تكير له وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب لعله يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن بربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وقلوبهم وجلة أنهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح وأن عليه النشأة الأخرى وأن وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأتقى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من أفمن هذا الحديث تعجبون فتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن لك في بطني محررا إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع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 وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا

Globo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرين عبد الرحمن سك خليف جنرال بجنبا autorité administrative yi nga xamanteni ñoo nekk fii ci Thienaba Serigne Al Hassan Niang Sek chef de village de Thiénaba imam cheikh ahmad imam Serin cheikh ahmad Seck imam ratib bu imam yi nga ñi monsieur le maire de la commune de Thiénaba mbooloo mi nga train de fi parents d'élèves di ay ñoo xamante ni dañoo bëgg alquran di ay ñoo xamante ni dañoo am sympathie ci alquran ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñi ngi leen di dalal yéen ñëpp ci turu parents d'élèves yi nga xamante ñoo nekk ci daara di leen wax ni euh, sunu njaal beenal kaddu ñu ngi koy mu nekk ak cant ak gërëm goo xamante ni dañ koy sante daara ji nga xamante ni mooy daara xaaja Binta Thiaw numéro 2 te Oustaz Momar Diop jiite ko muy direction mu nekk directeur bi yor direction bi moom ak ay collaborateur ussage ñu ngi lay sant bu baax ci tour parent d'élèves yi naaw bi ñu remercier direction bi remercier euh, jàngalekat yi remercier encadrement yi nga xamante ni encadreur yi nekk ci daara ji ak gestionnaire yi ak ñiy gere orientation bi ñu ngi remercier aussi képp koo xamante ni ci jege jege nga walla nga sori yaa ngi def ci daara ji pour que daara ji mën a avancer ñu ngi leen di sant bu baax di leen ci gërëm ndax gis nañ taxawaay bi ngeen taxawee suñu doom yi nga xamante ni dénk nañu leen ko ginnaaw ñooñu ñu ngi remercier parents d'élèves yi nga xamante ni ñoom itam ñoo am confiance jël seen doom jox ko daara ji ndax bu fekkonte ni dañoo am lépp lenn lu ñu fi gis lu leen jaaxal xëy na confiance bi du fi des yàlla bu yàlla yàlla bu yaakaar tas ci seen yaakaar boobu ñu am ci daara bi ñi ngi félicité waaw ñu ngi félicité euh, parent yi nga xamante ni seen i doom ñoo mokkal ñi ngi encouragé ñi nga xamante ni seeni i doom mokkalaguñu ñooy ñëpp ñu ngi koy def euh, comme dañoo bañ a guddal te waxtu bi daf ñoo njat sañu ñoo bañ a wax ci suñuy kàddu euh, ñaax parents yi ci ñaar benn bi mooy dañ leen di ñaax di ñaax suñu bopp li nga xamante ni mooy dundal daara ji li nga xamante ni moo taaral bis bii li nga xamante ni mooy tax xale di fi mokkale alxuraan ci durée bu gàtt li nga xamante ni mooy tax mu am yar bu rafet mooy parents yi di nangoo di fay di teel a fay oustaz di nangoo fay ba noppi di teel a fay loolu dafa am solo maa ngi koy ñaax parent d'élèves yi ci turu commission wala ci turu euh, association des parents d'élèves ñun ñëpp ñu ñaax suñu bopp ñaax parent d'élèves yi ñuy teel a indi fay yi waaye aussi di teel a fay waaye beneen chose dell ci fay ba pare nga ni damay def buuñaa jëm ci daara ji parce que daara ji dafa soxla lu mel noonu du fay gi rek mooy mooy mooy obligation bi waaye dañoo war a dolli ndax alquran ku ci def yàlla moo lay fayal boppam may waaja may terminer nag di wax ni thème bi nga xamante ni moom la ñu jël thème bi lii ñu def ci daara yi lii ñu def ci xale yi bu ñu delloo ca kër ya yéen yéen a koy sàmm parents koy ba nga ñu xalaat ci société bi ñaawteef yi fi am kenn du ko gis ci xale yi nga xamante ni alquran wala ñoo mokal alquran du ma jeexal samay kàddu nag di gërëm association des parents d'élèves sant naa leen bu baax a baax a nañ ci bi ليجي نين ليجي بو أمسلو نيجلين السنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون عظيم وأظلم تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك سخروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقيم مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا صدق الله العظيم كل من عليها فان lii moo ñu weetal ñun waa qur'aan ba ñuy jooy sunu maam cheikh borom qur'aan bëggoon qur'aan mënoon qur'aan te jekk ko bëggoon qur'aan mënoon qur'aan te jekk ko bu daan kaf sax ca lay jukki aka caafooroon bu daan kaf sax ca lay jukki aka caafooroon demoon na ba xale yi tuuti di ca amub takk na ba xale yi tuuti di ca amub takk tey mam booy nga ñun waa Qur'an tey mam booy nga ñun waa Qur'an jotaayu Qur'an dan na wax ne mooy lambam jotaayu Qur'an dan na wax ne mooy lambam ba fu ñu ko tëggee bu ko manee taxaw mbaa alalam ba fu ñu ko tëggee bu ko manee taxaw mbaa alalam dan na lool ci yéen xuffaat yi dan na lool ci yéen xuffaat yi ngeen di wettalam kayam ga safoon sappak qur'aan ngeen di wettalam kayam ga safoon sappak qur'aan danga daan wàññi li fiy daara ci baaraam danga daan ko tur borom bay Cheikh Qur'an tey ful ko tur borom bay Cheikh Qur'an yal na teeru ko teral dalal ko yal na teeru ko teral dalal ko namu ɗone won itteem yemna ndongab qur'an namu ɗone won itteem yemna ndongab qur'an mam boy sama wax mënta woy mam sama wax mënta woy ndax xol yi na del yal na firdawsi sëkër ci barke qur'an yal na firdawsi ci barke qur'aan yak sa sët ak bépp bu faatu ci barke qur'aan yak sa sët ba fat bintu gëy ak bépp jullit bu faatu ci barke qur'aan mënuñoo fàtte ñaanal suñu waajur wi ñu teg ci yoon wi mënuñoo fàtte ñaanal suñu waajur wi ñu teg ci yoon wi di suñu bàyyi tafsir Moussa Gassama yal na yàlla dolli ko di suñu bàyyi tafsir Moussa Gassama yal na yàlla dolli ko wér moo ñu yar teg ñu ci yoon ba yàlla defal ñu lii moo ñu yar teg ñu ci yoon ba yàlla defal ñu lii yal na yàlla fay ko guddal aw fanam te dolli defal ak ñu mel ni yow bay booy mënuñu laa fay li ñu defal ak ñu mel ni yow na yàlla fay la guddal saw dolli la wér yal na yàlla fay la guddal saw fan te dolli la wér yàlla yàlla aar ko sutural ko may ko wér nangul ko mboolem jëfam yàlla firdawsi këram yonen di wettalam ginnaaw gudu fan mu àndakum xelam amiin ku dib julit nani amiin amiin yal na yàlla nangu ñaan moom mi rahmaan yal na yàlla nangu ñaan moom mi rahmaan jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi doon euh, suivre xew-xew bi nga xam ne moo amee woon fii ci Thiénaba ci daaray Xaaja Bint Jaw numéro 2 di tarib alquran boo xam ni daara ji da ci koo tàmm woon a bokk ak parents d'élèves yi ak waa Thiénaba képp kuy soppib alquran ngir teral ci dongo yi nga xam ne dañoo mokkaloon alquranul karim ci atum daaw 2020 te bi taxoon jotaay bi mel ni amul ak atum ren 2021 ñu toll woon ci ñaar fukk benn comme ni ñu ko waxee woon daara ji incha allah yéen a ko teral nañ donga yi sargal nañ leen bégal nañ jotaay bi bégal nañ seen waaju ci njàngum alquran bégal nañ leen tamit teral leen ci mbokk yi jël ci seen poos jox leen ñu def ci daara ji loolu lépp daal nekk yiw ci képp ku fi nekkoon képp ku fi teewoon képp koo xamante ni suivre nga ko foo ko mën a suivre waaye rawatina ci la maison du Coran seen mbokk ñoom soxna Khady Khoumba ak Abdoul Aziz Camara ñoo leen jël si loon programme bi ngeen doon ci ànd ak seen mbokk Abou Taha Mohamed Aline Gueye asalaamaaleykum wa rahmatullahi